ci euh, nga xamante ni moom mooy honorable Kouramaki mi ngi ba Amérique mais xelam bi yëpp jamono ji euh, mi ngi fii fi nga xamante ni moom mooy Sénégal rawatina coow li nga xamante ni am na ci politique bi euh, naam gis nañ Ousmane Sonko keroog samedi mu nekkoon arena feesoon ko loolu ba mu fees gis nañ aussi arrestation Bougane ak sorte bi nga xamante ni nii Adama Faye waxoon na ko loolu yëpp tey dinañ ci waxtaan ak moom je pense que ni sénégalais yi namoon nañ ko aussi moom xam naa namoon nañu ah, balaa boobu dama koy jox mu léegi mbokk yi après ñu ko moom ci waxtaan bi honorable Kouramaki maa leen di di a baax. fay sama doom ji. Mhm. di nuyu sa camara bu bu baax boobu sama yaay ji ma Adja Maymuna Maymuna waaw. <laughs> waa di nuyu Bamba di leen ñaanal jàmm ju ma sëkk nag maa ngi fii ci Amérique waaye sama xel yëpp ngi Sénégal. Mhm. di ñaanal euh, waa Fuuta mm-hmm. yal yàlla teggi boobu nattu mm-hmm. ma bëgg sénégalais yi ak ñi dëkk Fuuta mm-hmm. ñu xam ni àddina warangal képp moo inande barki démb fii ci Florida sa mbokk sénégalais ya ne fa keroog nelawuma ba bër set kër yi ñoo doon naaw mhm. kër ay kër gi naaw kër yi kër yi nit ñi nit ñi nit dañ leen a génne dëkk ba ndax ni mu inondé mhm, mais ba mu ne delloo po yàlla mhm. yàlla mi ko def nag yàlla na ko dindi allahumma amin am nañu metti torop ndax ñun dara xajul ci ñun Afrique dañoo néew doole dara xajul ci ñun di ñaan yàlla nag mu teggi natt boobu ci sama mbokk xaal pulaar yi bañ ko yóbbu fenn ci àddina bi allahumma amin mhm, mhm. d'accord euh, kon honorable lu ñu def lu dugg ci waxtaan bi euh, mhm. sànq maa ngi naan la politique bi jamono ji metti na euh, gis nañ Ousmane ko woote woon samedi arena te pense que ni gis nga ko wala seetaan nga nu mel ci ay mbooloo ban jàngat nga ci am honorable non seetaanuma ko ah Abdou dama biise Abdou dama bëgg nga jàng dara ci man man sa sa sa sa sa yaay sa mag mm-hmm. Abdou lu ma intéressé wul duma ko seetaan duma ko xool I have a lot of things to dama yu bari yu may def mm-hmm. waaye may xamal di la xamal di xamal Sénégal ni leen mm-hmm. stade boobu Ousmane Sonko genn wàll gi yëpp daf leen a man maay wax mais honorable li ñu fay seen si seen ticket mille francs pour duggu na naka la leen mën a fayee. Ousmane Sonko daf leen a fay trois mille francs pour ñu ñëw genn wàll gi waxuma ne amul waa Pastef de waaye dafa am ñu ñëw ñu ñu fay am na ñu ne Pastef sax dañ leen a fay trois mille francs dugal leen ci kaar xam nga lan la addu mais mais mais mais alors. ci nekkuma ci waxu lu fees ak lu feesut. ok xam nga ci lu ma ne nii. Mm-hmm. fan la Sénégal jëm mhm. man loolu la sama xel nekk mbooloo waxuma ko gisoon naa fi seex ba ñisi miñ doon wooyee ñisi ba mu wootee Medina mhm. ca élection mairie ba mu pertee dama ne ana nit ñi ma gisoon mais gisooñu Sénégal Amadou Ba toppoon ñëpp mhm. demoon nga ba ci campagne yi amoon Ba day gagné ana nit ñooñu da nga jàpp waxuma waxu euh, mbooloo mi dara. non mbooloo du dara man li may wax mooy. Hmm. Sénégal kii mu taxaw actuellement nii ndax ñun sénégalais yi foofu lañu bëgg Sénégal dem fa. Hmm. Ousmane Sonko Ousmane Sonko bu fekkee ay waajuram ñi ngi dund te xam naa waajuram mu jigéen ñi ngi dund. Hmm. naaxul na woo Ousmane Sonko wax ko mu dal. mais est-ce que du politique nag honorable waa dama bu dee politique it. waa Fuuta say mbokk Abdou bi ñu nekk ci biir ndox. Mhm. li dal waa Fuuta musul am Sénégal. mbënd mhm. am na fi bataay waaye euh, euh, a dex dex gu wulli mhm. fekk si doomu aadama yi waroo woote Mbaboor mooy premier ministre moo fa waroon jiitu Bougane Gueye mais président de la république dem na fa tamit honorable Diomaye président de la république ba fa demee mhm. duggul ci biir nit ña dafa wàcc taxaw mhm. tiim leen wàcc taxaw xool naawaat flaayaat ñëw biir Dakar Abdou mhm. Abdou yéen ay journaliste ne journaliste yëpp laa boole li may wax nañu wàññi topp homme politique yi di far ci côté pauvre yi Ousmane Sonko bu ne dafay jooy Sénégal dafa nekk ci naqar ak ñittit ak surux mhm. mu taxaw génn mu ne Sénégal dafa daanu Sénégal is down nga toogaat ci kanamu Sénégalais yëpp nga ni ñëw leen ngeen jox ma mille francs Abdou mhm. bu wax dafay ña koy déglu war nekk nit nañ leen taxaw ci sunu réew mi mais voilà am na am na ko jàppee ni dana doon bañ jël xaalis bi nga xamante ni moo nekk ci réew mi seen xaalis book di ko campagne mais comme ni mu nee nag ku ne joxe 1000 francs je pense que ni du l'argent contribuable tamit. <laughs> yow waa yow yow miy wax loolu déggoo li muy wax ci ministre nii nañu indi ñii ay 1 million. ñii ay 2 millions. Hmm. ñii ay 5 millions fan la loolu ci ministre yi doog a ñëw yu amagul dara fu mu jógee. dëgg la. Abdou. Mhm. nañ leen dëgg nañ leen focus ci Sénégal nañ leen xool fan la Sénégal jëm. Mhm. sàcc la Sonko man Coura Macky maay wax xaalis ba leen waa Espagne jox Abbas Fall tëdd ci. ci loolu la ñu ne kenn joxewul ñoo fay xale yi ci stade bi di réeral sénégalais yi journaliste yi war li xew. mais mais honorable jël Ousmane Sonko dugal ko ci force. mais jël Sénégal teg ko ci kaw. mais honorable Sonko yàgg naa toog ne ku xam ba xam ni am nga yaakaar que ni jël naa xaalis boo xamante ne moom moo ko na nga génn wax nga génn Ousmane Sonko dafa jël xaalis yi. ma ni. Mhm. Sonko mu ne ku xam lu mu jël Ousmane Sonko simple duty employeur domaine naka ngay amee këru. trois cent millions ba ñuy wax quatre cent mu nekk cité kër góor gi ak yenn jaay mani hmm. bul ma wax waxu homme politique hmm. ñoom ñëpp seen bopp la bëggal ay sàcc lañu ñoom hmm. Abbas Fall ñu génn leeral cinq milliards yi ñuy wax Ousmane Sonko dem di mbaboor ci stade bi di bégee di kaf ñee nekk ci ndox mi muy kaf yi mu doon wax barki démb ndax li mu wax ci stade boobu dara lu make sense luy jëriñ réew mi ma nga fa woon xuppaate tiitalaate nappaate man na dóor Ousmane Sonko mu daw doo ñëw ensemble Ousmane Sonko daw taxaw di xupp sénégalais góor ñi nga yaakaar ni góor ñi dinañu daw te man kuréel ma ki ñëpp xam ne maa dàq Ousmane Sonko ni ko doo ñëw ensemble ñu. yaa daak Sonko. <laughs> barke salaatul faatiha maa tax ñëwut. la ma yoreel Ousmane Sonko ay bagages am su ma ko ko wonoon mu dee biir ensemble dafa gaaw malaise day dee. Ousmane Sonko. bëggul Sénégal jéem ko bëgg dafa am lu mu bëgg dafa ñu ko yónni pour Sénégal dem daawun du muy wax barke salaatul faatiha ñun ñëpp ñu ngi takku taxaw kenn du xeex. Bougane Gueye Dany njaay dëmm Bougane Gueye Dany dina ko jommal bëccëgu ndaraka ma dëmm jinnee mën ci moom dara da koy jommal ok mais euh, honorable sànq li ngay wax ne suñu mbokk yi nga xamante ni fleuve bi dafa jël seen kër yi di ñaan suñu borom mhm. euh, maanaam dafa leen jàmm ba yàlla def ci saafara bañ mën a amaat dëkkuwaay bu bu bu normal Ah, donc gis nañ euh, président de la République nekkoon zone boobu di waaj di ñëw euh, Bougane Gueye ne dafay dem te yow xam nga ni président bu waree euh, ñëw amul kenn ki nga xamante ni war naa mën a daw naam ñu arrêté ko ne ko xaaral tuuti président de la République dem Bougane foncé ba ñu arrêté ko bañ jàngat aussi nga am ci loolu. <coughs> président buy jaar fenn kenn du jaar. mais loolu xale yi sax xam nañ ko honorable Macky Sall bu daan yox 31 décembre war a def speech Sonko day génn dem beneen télé di speech. mais bokkul en fet you know what xam nga la. waaw dama ne jaarul ci télé bi ci kaw jaww ji la newoon bokkuñu yoon sénégalais yi nañ wax dëgg te mani mhm. ñu jàpp Bougane Gueye nañu ko bàyyi bu fekkee dañ ne leen nañu ko jàpp. Mhm. Sénégal bés bu guerre amee wala ñuy xeex ci suñu biir ñu ni neen ñooy xeex nanu bàyyi Bougane Sonko daan na ko def te ñemewuñu ko téye mhm. ko na ko ñi téye Bougane te Sonko waa léegi li xam nga ñi la wax wa wala musa cuub la nga yaakaar ni Bougane nga yaakaar ni Bougane du sabotage parce que boo gisee Ousmane Sonko woote na arena donc. Mm. Euh, bu ñu xëyee kenn waxul sax li jëm ci arena arrestation Bougane lañ doon. ma ni kon Macky Sall ku daan wax. Sonko dem ci beneen télé te képp xam nañ ci àdduna bu président di wax. Mhm. keneen du wax keneen du wax. dëgg la. mais Sonko da daan wax su Macky Sall di wax Sonko dem dem ca télé Sidi Lamine Niass yi di wax. ma ni mhm. Sénégal xam lan laa leen di yëgal mhm. nañu teg yëf yi ci balance mu tolloo nañu bàyyi bugaan dama la mhm. bugaan ak mën a daw bugaan dellu ginnaaw senegal la dëkk fa la juddoo yaroo opposition la kon bu taxaw bu mel ni na mu taxawee woon ca tey moom foofu la taxaw Ousmane Sonko ne du am. kon arrestation bi yow. Euh, ànduma ci ci kii ngi ci jaww ji kii nga ci suuf kii wàccul dem ci mbooloo kii ci mbooloo la doon dem di leen yóbbul teraanga ñoom ñëppay politique ñoom ñëppay politique jomaay eh waxal ma jomaay nee ko télé bi mu sol jàpp ko. kii ji oto lay nuroo jàpp ko ku ne sol ko fi mu jàpp ko ba mu des moom nan fa wàccee intéressé wu d'accord mais na wax. d'accord. opposition la comme Sonko ni mu doon des fa la buggaan teg tànkam dama ni. Mhm. la mu doon def mu di ko neex. ñëpp ànd ak moom lu Macky Sall wax Sonko teggi. su Macky Sall nee Sonko bu mu jaar fii tey Sonko fa jaar. Sonko di dugg ci àll bi di di di daw police yi di def lu ko di saaga magistrat yi Bougane saagawul magistrat saaga na chefu gendarme yi Bougane saagawul gendarme yi saaga na police yi Bougane saagawul police yi eh nañ bàyyi jàmbur nañ bàyyi mu dem ñu naan la trente la trente waaw su ma fa nekkoon damay ànd ak bugaan. dem tàmba man Coura Macky tey tey yow xam nga ni su ma la ko waxee yow man man yow man dama dund ni Sénégalais yi di dund yow man ma am pour dem Sonko lu mu sañ man am sañ naa lu ko raw te yéen ñii di góor sañ ngeen lu ko raw dafa am loo leen di seet. Sonko ko a fi juddu kenn ñii nañu bàyyi bugaan te bëgg jàmm. Sonko moo leen ni woon ñoom ñoo doon gendarme Macky Sall yeeg police yi ah tey ñun ñooy gendarme Sonko ak police Sonko ñun mën nañ ko wax waaye yàlla may nañu xel dañ delloo seen xel xam ne Sénégal bés bu fi dara amee ñun ñëpp ñooy am métti ñooy am naqar. Sonko dëmm la Sonko dëmm la na ndayam wax dëmm ah ndax yii ku koy indi Sénégal bëggoo jàmm. mais nee naa la ji bugaan ay jinneem lu mu doon def Macky Sall bugaan dina ko ko def barke Serigne Babacar Sy te man dinaa ko ko def. ok mais mais mais honorable gis nañ ni euh, li bugaan def. donc gis nañ vidéo yeeg mu xaw a yàgg mën na deux ans. Euh, ñu tegaat ko sax. Euh, président Bassirou Diomaye Faye naan jamono bu Macky Sall amoon na fu muy dem. bugaan dem fa. mu ne Sonko def ko woon euh, ko fu président dem waroo faa dem. donc waxoon na ko ay deux ans kon tey lii di ñëw est-ce que mën nañoo jàpp ko. mosul am la daara du ci dëgg. Hmm. dañoo wax ci àddina lu ma gëm jomaay Sonko du benn lañu loolu la ñu war de. Hmm. ñu wax lu tax ma dóor sama doom ci àddina gaw ma leen nee naa la ay xabalaaratin surtout am ak gros as woman nagg xam li ma bëgg xam fi nga jëm ñooñu di ñoo may wax lu may dégg bu fekkee sénégalais nag ñoo leen di déglu nañ leen déglu man Coura déglu ma leen ndax motu ñu ma njiit motu ñu ma njiit ok ku may jiitu dangay mën a a mën a yërëm ma ñu ma njiit la ñu ñëwee Sénégal te am na ñoo xam ne duñu daw nee naa la man maa dóor sonko mu daw kon yéen ku ci dóorul sonko da nga xool dafa am looy seet du dara négro bi dawkat la bugaan jënd na bugaan xam nañ ni góor la góor yàlla dafa woo Abdou wala dafa woo Maymuna wala dafa woo Kura wala dafa woo Naar Jóob mhm. dafa jëngu te loolu la ñuy wax na góor That that's what that's what we call a real man. donc nañu bàyyi. d' accord ñu jublu ci élection législative. 17 mm-hmm. novembre. naam sénégalais yi bari sax neewoon nañ doo bokk ci liste bi naam yaa ngi ci biir liste bi. Mm-hmm. ban jàngat nga am ci loolu ak. takk wàllu bi nga xamante ne nii booloo nañ. Mm-hmm. ban jàngat nga am. addu waaw di sant yàlla mhm. di julli ci sang sang yi di sant sama waajur wi mhm. Abdou bu ma Macky sàll dugalu loon sax fii ma taxaw falaay taxaw si si sénégalaise I am mhm. te yàlla mën na may na ma xel fa tabarakallaaw man ma dugg ensemble ak dugg fa noo ma frégué ñeente man Abdou dama lay wax de neexumaa xeex de. Hmm. neexumaa xeex de. am na ñu ne woon doo bokk ci liste bi. yàlla def na dëgg ma xam ko. Hmm. ba boo ma tooñoon tey Abdou. barki salaatul fatiha. Abdou bu ma jullee ñaari rakk balaa ma laa fekk Sénégal bi nga ma baalu mbaa ñu yërëm la. Hmm. yàlla loolu ma defal. Abdou maa ngi Amérique yéen ngi ci coupure courant ak maral bi. at bu ma nekkul député du ma ñëw fii ci sama njaboot gi mhm. at bu wanuma la barki démb ne maa ngi doon voté Amérique dama légal mhm. Sénégal ma nekk député daf leen di arrangé ndax lu ñu bëgg ta wax man dama koy wax <laughs> sant yàlla nag ok <coughs> bañ ma dugalee ci liste bi mhm. <coughs> di wax sénégalais yëpp ñu pare ñu ànd takku wallu Sénégal mu ne. oh yow maa ngi Abdou Abdou gisoo mu ni may naayilee sama bopp di pare di ñëw jéego. Hmm. sa yaay ngi pare ñëw damay du ma campagne si. di hmm. kàttanu sunu borom bi dama dégg nag sànq. Hmm. Euh, ci sa commencement wax yaa ngi naan. dinañu wax ci Adama Faye maa ngi lay déglu. dinañ ci ñëw mais balaa ñu ñëw ci Adama Faye da daa am mhm. question bu may laaj rek après ñu dem ci. parce eh que sénégalais yi ñu ngi ci wax jiyee di yàbbi. Eh ah, naam gis nañ euh, président de la république bi ci nekkoon di mag Sall sa waay. waaw. Euh, avant élection présidentielle yi mu jàkkaarloon ak presse bi. Eh ñu koy déglu mu ne moom doyal na sëkk ci Sénégal. bëggatu ci dara. Euh, ñu gis mu nekk tête de takk wàllu. Euh, sénégalais yëpp naan ku fi nekkoon ministre de l' intérieur nekk ministre des mhm. sports nekk fi président assemblée. nekk macha allah waa def nekk fi. macha allah jóge fi nekk fi euh, président de la république yàggul ñu naan. Hmm. ki taxawal ah. ma ne doomu Kumba Timboo Jeeg Amadou la yàlla dogal. ok mais mu ne doyaloon na tey mu bëgg a nekkaat député ban jàngat nga ci am. Mhm. Abdou. waaw Macky Sall lan la Macky Sall lan la. sénégalais la. jeexal na wax ji. Hmm. Abdou. Mhm. xanaa doyal naa sëkk damay dem sama yoon xanaa loolu rek ngeen dégg. Hmm. xanaa déggoo ay baax baaxam ba mu nee Jomaay Fay. Mhm. journaliste booba nekk ca. Ah, ah, ah, may mun a ndiir xale ba non set euh, euh, Seneweb waaw Mohamed ni ko lu tax yéen mm-hmm. soo leen paree président yéen ñëpp da ngeen di dem dëkki France mu ne dew ma fenn maa ngi ñëwaat damay xajal bëgguma gêner président bi mm-hmm. maa ngi dem maa ngi ñëwaat dama bëgg mu yaatu mm-hmm. dëkk Sénégal Abdou saa yoo meree ni bàyyi naa saa yoo meree ni doy na sëkk Macky Sall fa ci moment boobu bu doon man Coura Macky mu kàppaamal bi dama leen di saaga <laughs> dina wax bi dama leen di saaga Sénégalais ñàkkante yéen def gatsa gatsa <laughs> yéena ko doon laaj kenn ngay dem yéena ko doon laaj sa tàggoo bari na mu ne doyal naa sëkk dina dina campagne ma ne foo ne yàlla na yàlla lafal cat Macky Sall des na de day ñëwaat nekkaat président Sénégal dañ bu leen ko catu fa mu jaar yëpp yàllaa ko dogal te day doonaat président Sénégal mhm. maa la ko wax dencal na lii ci kàttanu sunu borom yàlla na fekk ñuy dund yàllaa ko teral dafa am ñoo xam ne yàlla mooy defar seen all life fa tabarakallaahu nanu ko riyàbbi nekk na ministre bi nekk na lii nekk na lii seen cat ak catu Sénégal yi ci kaw Macky Sall ak sama kaw. day ñëw su bëggee ñëw nekk tête de liste doon ñaata yoon Karim Wade di nekk tête de te ñëwul waaye yéen sénégalais yàpp bi leen Macky Sall moo leen defoon li kenn deful. Mhm. li kenn deful Sénégal Macky def. day ñëw nu mu ko neexee buy ñëw jour boobu Abdou. Mhm. Abdou bés bu Macky Sall di wàcc Sénégal naa la may un million. ah bon. barke Serigne danaa bëgg Abdou may la un million yow te dollar laa lay jox. ah bon waaw. deux laa lay kontal Abdou jox la ko bés bu sama mag ji di wàcc ci dëkk boobu mu defar. mais est dina ñëw kay mooy problème bi honorable mu ne. mu ne est dina ñëw kay mooy problème bi. loolu man wóoruma ok mais heure bu ko neexee mhm. nationalité sénégalais la yor Macky Sall bu ko neexoon tey fanaan si Sénégal tey jii mhm. lu tax Sénégal bëggul ku baax lu tax Sénégal xamul ku ko yore saaru Sonko saaru Sonko gii la ñu bëgg kii la ñu bëgg a dëkkal mhm. bëgguñu dëkkal Macky Sall mu baax ni ñu yéene sénégalais yërëm leen dëkk ci réew mi xam li mu mettee laaju leen ñaar dërëm bu dee jël ci alalu réew mi di ko joxe saa yu réew mi nekkee ci jafe-jafe mu génnee alalu réew mi joxe kii li ma laajte laaj na ay ministre ku nekk un million wala deux millions fu ñu ko jëlee ñuy doog a fu ñu jëlee xaalis <laughs> sénégalais yi loolu la ñu bëgg. d'accord ku mel ni Sonko la ñu bëgg ne ci fitna Macky Sall day ñëw heure bu ko neexee ma ni Abdou yow nga takku ñu jóg taxawal Sénégal. ok. Ah, ok loolu am na solo mais keroog faram fàcce mercredi bi passé je pense que ni seetaan nga ko. seen invité hmm. nekkoon Adama fay nekk frère hmm. ci Marème Faye Sall sa xarit sax mun naa ko wax. Hmm. Euh, noo gisee kàddu yu muy wax ne moom moom moo njëkk a taxaw ne euh, troisième mandat du am ne euh, li ñu daan def Ousmane Sonko. loolu daf ko metti taxaw na carrément ne Macky Sall dafa war a bàyyi Ousmane Sonko euh, li ñu koy wax yëpp dara amu ci ba tax loolu bokk na wala ak ci ay business am yu Macky Sall téye euh, ba mu jógee APR ban jàngat nga am ci sortem bi mu defoon keroog fee ca faram fàccee honorable Abdou seetaanuma ko waat hmm. barki Serigne Babacar ak sama makka gi ma dem seetaanuma Adama Faye ndax nawlawuma ko yaa ngi fàttaliku ba nga ñëwee sama kër ba ñu jàpp ba ñu wooyee yaayu Marème Faye Sall lan laa la wax. Mm-hmm. ma ne la yaayu Marème Faye Sall dama ni Sénégal boo wax dafee ña koy déglu war a nekk nit maire bi. Mm-hmm. amul amul temps wala mu am kattan bu muy demee di wër di jëndi terrain Adama Faye mooy sàcc bi mooy yuubalkat bi. Mm-hmm. ak na journaliste yëpp jël sama wax bi ma Adama Fall nañ ko laaj lan la joteeg Macky Sall. ah nee na nee na nee ko dafa amoon ay businessam mu defoon ci ay milliards ngeen téye ko ba mujj gi dafa jaay terrain pour mun ko fay loolu de jot na ko. est-ce que est-ce wax boobu Abdou. Mhm. ñun ñëpp kenn ku ci nekk. xam nga nit ak sa beau-frère. Mhm. ñun Sénégal goro lañ koy wax. Mhm. suñu xamee Adama Faye tey Macky Sall tax ndax Macky Sall moo takk Marème Faye mhm. Adama Faye dund dara ba ñuy war ko xam Sénégal ba moo war a siiw Macky Sall tax mhm. Adama Faye dama ni mhm. na leeral Sénégalais yi lan la Macky Sall tëjee ay bisam bu ko Sonko yëgee mu dem kaso de muy raaw ah bon lañu naw mooy jëkkëru Marème Faye Sall ñu ànd naw Marème Faye Sall mais naw ñu naw ñu Adama Faye wala ku nekk ku bokk ak Marème Faye ñun ñun xamuñu la ñun Adama Faye jaam la Adama Faye bu ma tax wax réew mu jàmm yéen ko xam lu fa ne de Adama Faye li ma xam bari na de hmm. Sonko Diomaye <laughs> Sonko Jomaay. aadama eh. fay day raay seen la xew a tax ñu ne Sonko woo xew ci suuf. Jomaay hmm. dafa ni ku yoole mu fay la na ma woo ma yoole aadama fay mu fay ma. bu la. Eh. barke ma wax li aadama fay def ba mu tax mu xuloon Macky Sall kon Sénégal yëpp naw Macky Sall yow di nga tëb rek saaga sa borom. te ba muy ba muy ñeex saagawoo di nga tëb rek sa goro lu ñaaw di tagg noonam benn waar de sénégalais yi ñu addu mhm. rek Marème Faye di xas Macky Sall am na xew lu Adama Faye def lu rëy Macky Sall ko Sénégal laay waxal Adama Faye mu def lu rëy Macky Sall baare ko jomaay na ma woo Faye ma ma waxulee Adama Faye ok mu ne euh, président euh, Ousmane Sonko li nga ko daan. Mhm. Euh, taxal diggante mook ay Sarr dara nekk ko lu dul bëgg ko maanaam éliminer lu dul bëgg mu bañ a. yow na toog Adama Faye na naa la waxu mer lay mer dafa am xew su ci jamaay bëggee xam dara wala Sonko nañ ma ma yoole <laughs> ma yoole Adama Faye li mu def ba mu tax mu mere Macky Sall yow nga ne Macky Sall ndax yéene na jël lu tàng di ko teg ci loxo Adama Faye la Adama Faye dafa. ñu naan mbooloo la bëgg ndax li mu taxaw. def la eh, euh, maa ngi wax addinaan may dégg Adama Faye jaam la màcc la du nitu dara buñ ko xamee ba muy wax waxi compagnie ak waxi business ak luubal Macky Sall moo tax Adama Faye amul power pour ami milliard jamaay. Hmm. Sonko. Hmm. amul milliard dafa raaw mais dama ni la ndayam Marème Faye ba mu nekkee ci pouvoir bi kenn musul woo ndayam dafa wàcc rek ñu woo yaayam ndax Adama Faye jomaay damay yoole woo ma ok damay yoole Adama Faye du nitu dara dafa mer le sëb la la ko gën a nga ca biir munoo toog di yàq ka la teral am lu xew Abdou journaliste yi nañ ko laaj lan la. mais mais mais lu mu génn wax ci président de la république looloo tax nga bëgg a euh, attaqué nii. barke Serigne Babacar Sy. waaw makk laa taxaw defar euh, Adama Faye mii vidéo ña ma ajandoor ñoo ni ma yaa ngi makk dindi lii. ba mu naan Macky Sall doo fi def troisième mandat booba tëj nañ lu bonam booba bloc nañ yu bonam booba dóor yu mu dóor Sénégal metti na Macky Sall bloc Adama Faye ok ah, Sénégal tamit nañu toog ni waa mani hmm. lu xew Adama Fall jekku Adama de ak lu xew de ma na ma na mani su fekkee jomaay hmm. li muy wax dëgg la ci moom hmm. na ma woo ma ma yoole Adama Faye. d'accord. <laughs> Adama Faye mooy sàcc bu mag bi Adama Faye mooy naa fekk bi màcc jaam la amoo ngor xam nga ni yow kii bu ngor du taxaw di xas jëkkëri Marème Faye ji at yëpp yëpp di saaga mu war a ak moom teral leen. Mhm. ku Marème Faye bokkal Macky Sall teral na la ku Marème Faye bokkal Macky Sall. teral na la Adama Faye da doon go go bëgg a nekk milliardaire Macky Sall bloqué ko mu jooy loxo la diiru ci Sonko di langaamu Sonko faale ko de Sonko <laughs> dina rëq ndigam ndax man maay seeti Sonko nag wax ko li am man yaa ka yoole da ah yow man yow jomaay rek yoole Adama Faye wax li mu def ba mu tëj ba mu mere Macky Sall li tax Macky Sall tëj ay yëfam. ok. a nga fàttali Macky Sall mooy fanaane Marème Faye su demee ba ba tëj rek ay ay rakki Marème ay yëfam am na lu ëpp lu xew Adama Faye bu waxee dañuy wax de Marème Faye lañ ci doon seet de mais yow wat Macky Sall ñu gënal de ñun man day Macky Sall ma gënal ñëpp. ok. moom lañ gëñal Adama Faye Macky Dala Macky Sall dégg naa nee na papaam jardinier Macky la woon waaye tey ay doomi Macky Gassama Macky Sall mooy seen chef di chefam moom Macky Gassama boo ko yeewoon tey ci bàmmeel day jóg salutal Macky Sall mm-hmm. ku jur dimbali la ku Macky Sall ah, Macky Gassama jur Macky Sall dimbali la ci doomu gardinier yàlla na sama bàyyi nekkoon gardinier lan mooy gardien gardien du liggéey Adama Faye bu waxoon ni papaay Macky Sall agresseur la woon wala sàcc damay dee wala dafa mhm. fa tabarakaal gardien boobu ci barkeem la Adama Faye ci laa xamee Adama Faye bu ko xam bu dul woon Macky Sall doo xam Adama Faye na réglé Sonko da koy tëj ba damm jaabu ji. <laughs> d' accord d' accord honorable. ndax ko yoole dinaa ko gën a bandi Adama Faye day bandi <laughs> tëddee jabaru jàmbur yëpp. waaw maay wax ma tëddee jabaru jàmbur yëpp. Adama Faye dafay ñaaw bandi nga ñëw ñu leen ci naan naan dama ko muñal ba ëpp rus ma ren fay ba ëpp Macky Sall ma gënoon. <laughs> moo ma gënal Adama Faye Adama Faye tëddee na jabaru jàmbur yëpp. <laughs> may wax yow. d'accord. jënd xaar yàlla gépp ak garaayo Sonko Diomaye. Hmm. nañu xool Adama Faye fu mu ay kër yëpp ki terrain ñu audit ko lan lay liggéey. ok d'accord. yàq ko la yombut maa ngi fi yàq ko yombut. li ma xam dafa bari nee la mhm. boobu laa lay bàyyee ci Adama Faye papaay Macky Sall du tëggkatu tama amul maam buy tëgg tama te papaay Macky Sall këppul kees du violeur <laughs> kontaan naa nag mu nekk gardien lañ ko xamal ñaaw na lan nañ te doye di te manqué Sonko dina rëq ndigam bu fekkee loolu lay doon dinaa ko yoole d'accord <laughs> Macky Sall gi wax de Aliou Sall du wax de man maa ko yoole Sonko yow Sonko man rek la bëgg Sonko <laughs> danaa la wax li Adama Faye def ba mere Macky Sall Sonko woo ma ok d'accord ok d'accord honorable yaakaar naa loolu mm-hmm. loolu leer na nee naa la Abdou euh, waaw Abdou mm-hmm. dama ne mm-hmm. fu Adama Faye génnee ci suba ma génneel ko ci ngoon rusul rusul jarbaatam rusul doomu Macky Sall yi mhm. bët bu rusul toog na doomu Macky bu jigéen di ndey dëris nga toog di yàq seen baay ñu lay xool ngay seen nijaay mhm. Adama Faye na ñàkk jom rusul Mansour Faye rusul rusul Oumou rusul sonko lay raay ndigam danaa wax sonko jomaay li mu def ba tax mu mere ma Macky Sall di leen raaw dinaa yoole <laughs> foofu lay tàggoo dinaa yoole d'accord euh, raawul euh, jërëjëf ñun mbégte la euh, mhm. saa bu actualité bi tolle fii mhm. ñu ñëw sa kër waxtaan ak yow boo fi nekkul ñu woo la comme mhm. ni appel téléphonique naam yaa ngi ba Amérique di am mbégte loolu bu baax a baax ci lu ñu may satan tuuti ñu waxtaan ci ak yow Ah, di la wax ni daal amoon mbégte di la dalal daal jërëjëf Abdou maa ngi ñaanal ñëpp di ñaanal sa ah, jigéen boobu muy muy mun a jaa muy mun a moomu mm-hmm. di ñaanal Sénégal jàmm di waxaat ah, waa Fuuta mm-hmm. maa ngi leen di ñaanal yàlla ñu mun loo ko yàlla te xam ni état bi ñu am ni di ñoom ñoo leen di dimbale ci lii na Sénégalais yëpp takku Amérique gi sax loolu fi am mm-hmm. ñëpp dañuy ñëw takk génnee yére yi sa yére yu màgget yi yére xale yi ñëpp ñu jël ko ñu yóbbul leen ko loolu la ñuy def si def ko ay kees lekk yi ndugg yi ñëpp ñu yóbbul leen ko mhm. su ma ñëwee dinañu ànd Abdou dama mën gis nag waaw dinaa ci woo Sénégalais yëpp seen yére yi laa bëgg yére yi jigéen ñi denc yi ak ci armoire yi mu yàgg loolu am solo moom laa bëgg ñu yóbbu ko Fuuta ca mbënd ma Hmm. américains yi dañ koy def fii dañ koy def dama gis ñu koy def hmm. waaw ñu def ko yu góor yeeg sa tuba yi la xatoon abdou mënatoo ko sol am na xale yu mu jot foofu hmm. ñu may leen ko peut te suñu borom bi tax man foofu laa bëgg a génn ak sénégalais ba ci amérique kuy def conteneur sooy yónnee boo ma yónnee wére yi dinaa ko yóbbu ba fii d'accord loolu de moom rafet na maa ngi ciy woo yëpp waaw incha allah jërëjëf mm-hmm, merci waat jërëjëf Euh, jërëjëf suñu mbokk internetu euh, Feeling Dakar TV comme ni koy waxee mbégte la à chaque fois bu actualité bi tollee fii euh, ñu woo ko waxtaan ak moom je pense que gis ngeen li nga xamante ni jot na ko révélé jot na ko waxtaan ak askan wi di ko ñaanal gudd fen ak weer lépp lu mu bëgg suñu borom defal ko ko di jaajëfal may moo nekkoon ci régie bi Abdou moo nekkoon ci présentation bi di leen jox dig daje ak keneen incha allah jaa ngeen jëf.